man xaw ma fu ñu demee caatu Ndakaaru ak Sa Thiès caatu Ndakaaru moo ñu woon ginnaaw ñu ngi doorante ñu ngi am ba kawo am boobu na ko kan ab da koy Allah luy xew luy xew doorante doorante takk ko takk takk la mooy xew lu xew moo daanu na caatu Ndakaaru daan na Sa Thiès Junior caatu Ndakaaru daan na Sa Thiès Junior Guarda